ñëw fii nag te duñu wax ci coupe du monde bi te tamit euh, <laughs> ku bëgg sport la parce que. ana sama téléphone <laughs> ah, ana sama téléphone ma génne ñoom <laughs> ñoom kii ñoom kii euh, ñoom Fra euh, ñoom Zulfa Bokande ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm ñoom Thierno Youm. non bu ñu fi indil 2002 laa lay jox ba pare. doog la indil 2002. temps Bokande. am El ñëw faa ñoom Bokande. El Hadj Bokkalaay danaan la Bokande yaay suma sóor euh, nga laaj Fadiga mu wax la loolu nga laaj Henri Camara mu wax la ñooñu gëm grand yooyu waa gëm grand yooyu nit ki boo ko gëmee li ngay jël jikko nanu respecté 2002 El Hadj Ousseynou Diouf ba football sosoo ba léegi kenn du ko ci raw ku ko ci raw ñu ne gonga bu ko Sadio Mané rawee dinaa dinaa ko apprécier El première coupe d'Afrique am ak ñamu andal lan dem final ci la jël ballon d'or tol ni sénégal ak ñun ni nu wé bir ben stade am non li nak dama koy wax président Macky Sall 32 milliards yi mu jël xawma 30 milliards yi jox ko déféré ko stade mbeur yi bu ci yokkoon 20 mu am ben stade 92 nga gëjé organiser coupe d'afrique président Macky Sall bi nga xam ne yërmande gee bari rek waaye boo yoo xam ne chaque semaine ñu fay ko 50 millions ñu woo leen ca pale ba ñu naan may ñuy terrain jox ñuy passeport yow ñoo xam ne yéen ay jet privé sax moo leen di jël si ngeen di fay ko par semaine 50 millions ngeen dem amoo leen dara loo leen di wax ngeen qualifié naan may leen ñu ay ay may leen ñu ay terrain nan ñoo ma may leen terrain <laughs> ñoom dañoo xeeb li ñu am ay 50 millions nan tànn 5 jours rek ñu ñëw ma may leen ay terrain garaawul yooyu dafa ruslu quoi nan arrêté ñun mënuñu fee nekk di supporter di jël suñu xaalis ak suñuy sarax di ko def booy yi pour waree gagner, du gagner. gagné danoo sonn ci maslaa bi. fii leen fi dem 2012 ñu dóor leen 3 fois 2-1 génn ñu premier tour loolu Amérique la ma fekk mënu sénégalais bu ma xamal leen man Zahir la Zaïre laa laa dëkk. ba beneen année ba ci topp mujj ñoo dem qualifié wuñu sax ñoom booy yi mais amul raay arrêté leen gànn ak yow ak Sadio ak ñëpp lay lañu waxal il faut ngeen déggal grand yi tarbiyu grand yi grand yi gunge leen ngeen ànd dem El Hadj ba léegi kenn du ko ci dab kenn du ko ci dab ndax deux fois ballon d'or la tegale nekk septième jour mondial Fadiga doon ndaanaan nekk numéro 10 doon ndaanaan boo leen bëggee ñun ñu ànd ak yéen respecté leen ñii jox leen cër jël ci seeni xam-xam ñun ñu ànd ak yéen ba ba léegi yéen a ñu toroxal